ba ci biir biroom biroom ne ko barke Muhammad Rasulullah liste yi da nga koy valider par force wala ma taal. xadisa amee koor a ngi nii ma ne ko xoolal valider. je ne vais pas aller à la cour d'appel man miinu ma Dakar Guédiawaye rek laa miin par force da nga koy valider soo ko valider wulee fii ma taal ko tey ma jël sama boo yëpp ñu wër foofu Ami Kanté di togg ay añ trois jours mu valider ko Macky Sall affecté ko ginnaaw Goudiri boobooy benn ñaar barki Dembo Ndiaye bi ñu rejeté liste Barthélemy Dias

ëpp ñu fit Sonko mi ëpp ñu fit Sonko s'il vous mooy dañu koy valider par force wala ñu gàttandu Macky Sall fii Yoff ginnaaw suba lay ñëw par force war eh ndig eh man man eh conférence des leaders laa ne je suis signataire Khalifa Sall ABM lañ koy laaj leader la ñun ñëpp ay leader lañ man signataire laa ndigal li maa ko joxe validé par force wala ñu jëli ma ci aéroport xam ne lépp ay complot la ay sos la pour ngay éliminer yow ci làmb ji koo bëggul bëreel nga ne doo bëri moom nga xëy signé Macky Sall Macky Sall infiltrer la presse je vais m'adresser d'un petit mot à mes collègues journalistes la presse au Sénégal comme la justice elles sont indépendantes c'est aux acteurs maintenant de prendre leur indépendance man fi ma suis mouvement la mu taxaw nee ne gëm sa bopp ma taxaw nee ne yeewi te dama gañe dama gañe maa gañe maa gañe maa yëkkatale ko Macky Sall ba ci kaw dóor Macky Sall Macky Sall def ay pexe ànd ak Babacar Diagne moomu nga xam ni le sale boulot lay def pendant 40 ans naa fekkam bobu ne len amène Ahmed dara ci ëttu presse Babacar Diagne aussi soutenir ay na fekk jappalé ko ñu def lu ni mel ñuy segg ñi ak li duguna na fi gëna a so ay digne fii yalla mo fi ne ñu ngi len di gërëm di len sant bu baaxa a baax vive yewi vive la validation de notre presse merci beaucoup Ahmed Aïdara ki yenu Aliou Sall équipe Macky Sall sàcc la lu nekk lay sàcc nag day sàcc suffrage di sàcc ay maire di sàcc ay jaam di sàcc ñu gorewul di complot di sàcc liste waaye sàcc bi day dafa am nay sàcc rësala constitutionnel le conseil constitutionnel tëdd na le conseil constitutionnel xam na li màkk bëgg waxoon nañu ko itam waaye dañu jàppoon ni gor am na ba léegi ci réew mi biñ ñu ministre am nga xam ni moo ko yëlif te du mës jël ministre bu neutre bi biñ ñu ko waxee dañu yaakaaroon ni sept sages président bi wara a au mois d'août dina am lu muy rus wala mu am lu muy jom waye amul gatché amul lu muy rus amul lu muy jom ñene ñu la mu def ñu wax ñuko lola tay moy préparer coup 2024 ndax da fay def ay sondage xamna ni yewi rek mën nako ko mën na ko mu tok ba ci goudi voté bi nga xam ne mooy yokku député yi daal di ni nañu jël juróom-ñaari député yi ñuy yokk génne ko ci juróom-benn fukki député yi nga xam ni moom la ñu war a séddoo. biñ ko defee Mamadou Lamine Diallo mii moo ma ne Macky de puus nañu pour ñu ànd ànd boobu ñëw defoon na ay sondage ci Yewwi parce que yéen askan wi yéen a ànd ak yeewi waru leen yeewi yeewi du leen war waru yeewi yeewi du leen war élection locale ngeen war Macky Sall ni ko yéen yeewi ngeen àndal waaye dafa am lu ngeen ñu santoon da ñu war ànd leen su jëlee 112 député def ko ci département yi bu ngeen àndee gañe ko ñu jël deuxième muy yeewi ak troisième muy wàllu ñu ànd loolu cocktail de tonnerre la bombe la bombe la loolu moko ko Bamba di ñaanal Serigne Mountakha mu yag fi te way bu ngeen gisé Cheikh Abdou Bara doli seen xel wara dal xam ngeen li ngeen bëggoon am ngeen ko Macky Sall jóge na fi bis ni ki tay le président Khalifa mang lay nuyu sa turu yewi le président Lamine cham di jité délégation ak Mamadou Lamine Diallo touru walu mi président Ablaye Wade man lima len leen garantir moy Touba la jógee dina gagné Touba inshallah yeen askan wi yeen lay waxal bis ni ki tey moo nekkoon le 8 le 8 saint le 8 mars bi paté ci lan taroxalon nakki Sall ci kanam Ousmane Sonko bu len fàttali le 8 bi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 ci turu Serigne Moustapha Sy di leen wax ni Serigne Moustapha Sy mi ngi ànd ak ñun mi ngi nekk ci wet lepp lo ni war nañ ko def ci combat bi mi ngi koy def mi ci ak ñun di nuyu di sant ñu ngi nuyu wa Dakar yeb, di nuyu wa Sénégal yëpp dañuy wax ne bukki

nekk di def lu leen neex ñun ñu di leen xaar ñu depuis 2012 Sénégal dafa nekk ci benn cauchemar Sénégal li fi un ci ay mag ñu baax ñëpp dee nañu Sénégal sénégalais yi mënatuñu correctement dund gi cher na. loyer yi cher na kenn mënatul faju suñu doom yi ak suñu mag yi jàngatuñu jigéen ñi xamatuñu nu ñuy yore seeni kër loolu nag kenn rek moo ko waral mooy mag yi sàll dafa ay gaaf nag. lu détermination bi ku yekk si jàkkaarloo ak kanam yii xam ni ñii ils sont déterminés déterminés pour que Yewwi Askan Wi. Beaucoup ci élection déterminé pour que le président Macky Sall mène avant nous, déterminé pour que la justice mène au Sénégal dama bëggoon que ñaan leen lenn parce que nit yu baax les nit yu nit yu xam seen bopp ngeen ma leen di ñaan toujours ñuy ràññee suñu combat parce que ñun ñoo organisé te sànq dafa am suñu ay xarit yu nu woo ni ci njëlbeen bi ñu yegsee dafa am benn journaliste bu TFM am incident bu fi am ñu bëgg déglu leen ma bëgg wax gis nga bi may nekk armée bi may nekk armée bi may nekk armée bi armée di formation d'officiers de réserve dañ ñi il faut jamais se tromper de combat Les gën ne bon ci nit tromper wu de combat suñu combat c'est avec le président Macky Sall suñu combat c'est avec Antoine Si suñu combat c'est avec le Conseil constitutionnel. Gagnez, gagnez, gagnez, gagnez, C'est sûr, ne Macky Sall mais.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 élection bi dafa am liste nationale am liste départementale ma di len wax ni suffrage yi ngeen di am pour ñu gagner ci département yi ngeen koy amé li ñuy am ci département yi mom pour mën calculer lan la am ci liste nationale par quotient électoral je ma di ci insister parce que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 nii day bokk te suñu tête de liste Ousmane Sonko day dugg assemblée nationale par force jërë ngeen jëf mbokk yi jërëjëf ndigal may leen ñu rek tuuti sama kàddu bu njëkk maa ngi koy jagleel Firawna Macky li may njëkk wax Macky opposition bi mu ne woon dina ko réduire à sa plus simple expression voici la plus simple expression de l'opposition au Sénégal Di ko jiitu su doon ku dese tuuti xel war dina lim ko wara delo ci moy mu xamni du yalla du yonent mu fàttaliku ni nguur gi donn ko ci way juuram nguur gi foqatiwu ko ak doole nguur gi ñaarel bi ma bëgg wax moy ku teew fi ku fi nekkul di seetaan fii biir Sénégal ak bitim réew dama bëgg ñëpp ànd ne Macky Sall na bàyyi Cheikh Omar jaañ mu dellusi njabootam. ñi ko ngemb ñi ko ngemb mooy ñi nga xam ne. mooy bu ñu nee Cheikh Omar Diagne dañ koo jàpp parce que dafa wax lu mu warul wax ay tarixa waxuñu dëgg Cheikh Omar Diagne taxawaay bi mu am contre franc-maçon ak homosexualité moo ko andil lii ko dal nii ba tey ñu xañ ko njabootam lu mat ñaari weer ak lu tegu yii mooy andi fitna ci dëkk parce que jamono jooju ay nit ñu sàcc xaalis réew mi barki démb dégg ngeen ab géwélam nga xam ne riiti ak xalam lañ ko xamee woon tey mi ngi yor ay milliards denc ko ci ay chambre ñu koy sàcc te OFNAC waxul CENTIF waxul procureur waxul kenn waxul parce que géwélu Macky Sall la est-ce que loolu jaadu na ñu jàpp koo xam ne lañ koy jiiñ mooy nee nañu dafa def publication ci page Facebook am ne ko ràpp ci kaso bi parce que ñii nga xam ne ñoo yor agenda góor jigéen ñoko sant Macky Sall na bayyi doomu jambour mu delu kërëm ñettel bi ma bëgg wax parce que dafa am luma gis dañoo am nak dajé bu am solo dajé bi artu la ci Macky Sall waye tay lañu lancer suñu pré campagne wala suñu campagne kon dama bëgg ngeen dégg luma ci lu am solo dañoo def coalition bo xamné diggante grande coalition wàllu Sénégal la nga xam ne président Abdoulaye Wade moo ko jiite. ak suñu coalition ñun muy Yewwi Askan Wi nga xam ne Khalifa Ababacar Sall mooy président conférence des leaders. li ma bëgg ngeen jàpp yéen mooy dañoo dem ba daj ba xool ba xam ni ñun ñi ñëpp nag benn problème la ñu am. benn noon lañu am te muy noonu Sénégal muy Firawna Sall ñu xam ni déglu leen ma rek ñu xam ni fii rek ñu xam fii rek xam ngeen may ma may ma ma may ñu xam ni xeetu élection yi ñu jëm muy bi ñu jóge ak bi ñu dëgmal dafa di élection yoo xam ne raw gàddu la moo tax ñoom li leen gën a soxal mooy nañu fexe ba opposition bi continuer di diviser wu bu ko defee ñu ne Ousmane Sonko moyetul PDS PDS moyetul xalifa Khalifa moyetul PRP ñun ñu continuer di tasaaroo ñoom ñuy bennoo di ñu duma continuer tey réew mi di ci def leen neex looloo tax ñu ne nañu ànd kenn ku ne ci ñun yor na kuréelam kenn ku ne ci ñun yor na projet kenn ku nekk ci ñun yor na ay ambition waaye su dee dañoo bëgg a Macky Sall continuer toog ci bopp réew mi nañu continuer tasaaroo ku nekk ne toog sa yoon. kon bu ngeen d'accord ngeen ni ànd bi lu war na kon dama bëgg a bis ni ki tey ku fi bokk yeewi na jàpp wallu ku fi bokk wallu na jàpp yeewi. def campagne gis ngeen campagne bi Yewwi du jaar nii Wallu jaar ni ñun ñooy bokk campagne ndax département boo dem su dee Yewwi moo fa jiitu Walloo ngi ci gannaaw ànd ak moom ci liste bi bu dee Walloo jiitu Yewwi ci gannaawam ànd ak moom ci list bi kon suñu destin daf yàllaa ko boole kon. bis niki tay bu len def xaj ak sen digeunte Yewwi ak walu ben liste bi la lol nak mo téré nelaw Macky Sall li mo téré Macky Sall nelaw way buñ ko yak buñ ko yak nañ ko défar nañ ko nañ ko dolel bu len kenn yobbu ba ngeen naan tay ñun PDS neeg ni kon ñun dañuy def neeg PDS wala ñun diw ak ni dedet Si vous Ben un objectif le 31 juillet heure bi vous commencez wani, ni vous ni Macky Sall abal rendre hommage président Abdoulaye Wade rendre hommage ñu ci bëri miinu ma leen de ñi ma xa ñi ma àndal assemblée xam naa leen ñenn ñi ci fan yi ak suñuy waxtaan xam naa leen waaye président Ablaye Wade am na lu tuuti lu ma xam ci moom. ndax nekk naa man mii ci jafe-jafe jël sama téléphone woo ko boobu mu ngi Qatar ma ne ko lii de am na mu ne ma defal conférence de presse boo demee neel Ablaye Wade nee na ma lii wax ji jeex te bi ma ko defee noonu la wax ji jeexee kon tey. dina ko delo njukal te ba legi munon na bank ay yoxom ndax ay atam laaj nako ko mi ngi ci combat bi te dina ñew japp ci combat bi kon ni li tax ma koy rendre hommage te dina ko def pour Abdou Diouf def ko pour Senghor xam ngeen ndax lan ñooñu yeb kenn mu fee nit nek candidat xagn nit candidature ci Macky Sall la xewé fi Sénégal limal len ma kenn ko xamné Abdoulaye Wade wala Abdou Diouf wala Senghor téré nako mu nek candidat mi ngi seen coffre fort gis nga bisu manifestation amatié ba ngeen dajji seen keur ay milliards ngeen fay fek ay milliards milliards ci ñu jëlé ci caisse état bi. ndigal gaa ngi ñëw leen ma ñu terminer. ma rek ma terminer lan mooy bilan Macky mooy suñu pétrole ak suñu gaz Macky Sall ak rakkam sàcc nañu ko jaay ko ci am anam goo xam ne Sénégal daanaka amu ci dara bind naa ci téere tey la gën a actuel te mi ngi continuer jaay pétrole bi ak gaz bi ak zircon bi loolu mooy bilan Macky Sall mooy hôpital bu baax amul Sénégal suñuy doom a ngi lakk ci biir hôpitaux yi Macky Sall yëgalu ko yaramam moom jàpp na ni lépp xaalis la fu ma dem rek naa joxe xaalis wax ji jeex na. école publique amatul Sénégal est xam ngeen ni jamono jooju tey jii may wax ak yéen fële ci kanam RTS dem na lebi 33 milliards pour ne dafay tabax building building 33 milliards bu mu leb ak banque boo xam ne rakkam moo ko lancé woon muy banque de Dakar. pour ñu tabax 33 milliards bi rek ci boobu jamono hôpital bu baax amul Sénégal loolu mooy bilan Macky Sall Macky Sall faalewu leen am ngeen liggéey wala amu leen ko du yoonu Macky Sall yéen a ngi faju am déet yoonam newu ci yéen ngi am problème ñi ngi leen di agressé ci mbedd bi yoonam newu ci école bi tëj na yoonam newu ci Macky Sall moom dong ak njabootam ak géwélam la tal moo tax lii nii suñ ko bàyyee mu romb li di suñ ko nangulé Macky Sall nañu xam ni am nañu ab firawna bo xamné 40 ans yi di ñew mo fi tok ba dootul mëna dox may wax tamit né wa benno bokk yaakar temps yëpp dégg nañ leen ñu dañuy menacer benno bokk yaakar yem leen duñu seen morom ñu ci yéen yakar.

ay Moustapha Niass nga xam ne toute sa vie il a sucé le sang du peuple ay zumbi politique Idrissa Seck nga xam ne zumbi la kenn xamatul fu mu ne ay Aminata Mbengue Ndiaye Yen ñii balaa ngeen di dund balaa ngeen di juddu yéen ñi nekk fii Aminata Mbengue Ndiaye ak Moustapha Niass ñi ngi doon dundee état Sénégal ba tey ngeen toll ni ñi ngi dundee état Sénégal dinañu dem bay doxee békki dañuy dundee état Sénégal ils ne représentent aucun avenir pour le pays ils ne représentent aucun espoir pour le pays suñu dese woon tout ngor dañuy nous dem toog yor mi ndax nous ne l'avons-nous pas ko ci nous mi ñooñu Nous avons menacé dama ne nous la ñu woote Nous jàmm koy dox Macky na naafeq gi ne ci moom ma koy wax nag suñu papa suñu yaay yi toog ci kër gi parce que léeg dañ leen ni nax soo waxee ñu ne waa ji dafa yaru ab mii kër la xam nga mii kër koo gis mu dem ci télé yi di saaga Macky Sall la ko jox xaalis ne ko demal saaga Ousmane Sonko bu paree mu recevoir ko palais moom mooy recevoir saagakat palais de la République moom Macky Sall ñun de kenn mësuñoo dégg ñu saaga. waye suñu fulle dinañ ko wax bu mu mat sëkk te lu wax loolu lañu gëm kon may wax sénégalais tay le sénégalais en danger té ben danger mo la am moy Macky Sall lan moy bilan Macky Sall lu ñu xam Sénégal tay ngay gis Sénégal ku jog taxaw saaga nit ci waasoom ci ethnie bu mu bokk ci région bu mu bokk tey ngay gis ku dem télé wala dem rajo wala dem sit internet saaga nit dugg ci vie privée am saaga ndeyam saaga baayam ñuy dund ak ñu dul dund tey ci Macky Sall la amee musul am Sénégal lan moo raw loolu ci violence te ñu koy def ñëpp mënoon nañ ko régler ci benn seconde mënoon nañ leen régler ci benn seconde musu leen musuñu leen jox ndigal ne leen attaqué leen